ñu ngi mbokk yi fi nekk yëpp ñu ngi nuyu population yi jege ci dëkk yi ñu wër Taïf yëpp di nuyu waa Taïf di kilifa yi nga xam ne ñoo ñu fekk si ci bis bi muy bis bu am solo ñu war a jëm ci di ñaan élection présidentielle comme ni ngeen ko xamee réew mi am tolluwaay yoo xam ne nii depuis sept ans dafa nekk ci ay loxo yoo xam ne nii. ay loxoy tële lañ luy njombe ci réew mi gis nañ ko fi luy dellu ginnaaw ci réew mi gis nañ ko fi lépp luñ doon séntu ak yaakaar ci jëmale réew mi kanam gisuñu ko kon réew mi dafa soxla changement changement boobu nag dafa war a jëm luy dimbali baykat yi luy dimbali jàngalekat yi luy dimbali ñuy faju bëggee faju mën a dimbali xale yi am xëy mën a am xëy luy dimbali jigéen yi liggéey mën a liggéey gis ne ans yi nga xam ne amuñu ci Sénégal dafa soxla changement changement yoo xam ne day déglu sénégalais yi déglu seen jàmbat fas yéene indi ay saafara ci li nga xam ne moom la sénégalais yi jànkonteel ci jafe-jafe ñun nag liñ fas yéene moy bokk ci liggéey bi ànd ak candidat boo xam ne nii gis nañ programme am gis na suñu programme suñuy programme déggoon na ba incha allah danañ leen wax tey jii kan la ci élection présidentielle kooku nag li ñuy ci moom mooy ay am solo d'abord ci am yërmande ci sénégalais yi am respect ci sénégalais yi am respect les kilifa yi am respect ci kàddoom am yërmande ci li doomu yi di renforcer démocratie di justice def liggéeyam mu bàyyi l'Assemblée nationale def liggéeyam li ñu naan séparation des pouvoirs nekk loo xam ne nii day nekk lu réel mu nekk démocratie bu réel boo xam ne dalañ ko dund ci Sénégal donc président boo xam ne nii pouvoir yi incha allah ci réforme yi ñuy war a indi dana indi ay chappatiku ci institution yi mu am équilibre ci institution yi ñu encadrer pouvoir président de la république ba nga xam ne du nekk buur boo xam ne nii lu ko neex la def parce que président de la république ñu ko gisee mooy dafa bari doole te doole jooju fekkee ne teguñu ko ci ko xam ne nii loxo boo xam ne nii ku am yërmande la loolu du baax ci Sénégal Sénégal dañu soxla ku leen yërëm soxla nañ ndimbal te loolu njiit lu mat njiit lu déglu kilifa yi njiit lu am ak dal njiit lu am yërmande moom lañu soxla kooku nag jàpp nañ ñun ki ñu jàpp mooy dana indi changement yooyu ndax xale la jàng na am na compétence bi ay jikkoom doy nañu am na yaakaar ci moom ne bu ñu ko tegaat ci bop Sénégal Sénégal dina am changement mu and ko kilifa yi and ko ñun ñu liggéey ko kooku mooy le président Ousmane Sonko